الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله بكو جليدي بكو تلسبكتاتري سيتان سين شين بيدي المصباح تي في نيغلين دي نوي بو باخ دي لين زياره دي نوي بروم كيرغي حاج منصور مباي ديكو جاجيفال بو باخ تي تخاواي بو ام سولو بي تي ديني جي اك تي طريقه بي واي دي جاجيفال شريف شيخ متجاني مني اندال تي ايميسيون بي di fàttali mbokk yi rek dellu si waat nañ ci seen darsu kifaayatu raaxibin bu cheikhul xaj malik radiallahu anhu ñi ngi nekkoon ci churutul muqtada charte yi ki nga xam ne dañ koy roy dañ ko war a topp waxoon na ne moom na doon koo xam ne dafa am li ñuy tuddee wattu orma yàlla wattu xorma yonent sallallahu sallam waaye nag mu wattu ñi yàlla defal ak jagle ñi yàlla may cër nga ormaal leen nga jox leen cër waaye itam waxoon na nga am yërmande ci jaamu yàlla yi ñépp nag nga yërëm ñépp ba pare ngay jéem a taxaw ci seen xaq sa kem kàttan yéen a ngi fàttali histoire Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu euh, melentaan wa mu foroon ba muy jàpp jóg di wër mbokk melentaanam ya ba yegg ci ñoom dem jébbal leen ko ndànk parce que nee dafa yëg ni kii dafa réer ay mbokkam <clears throat> dafa réer ay mbokkam loolu ci mbaax la bokk déggaat naa ci beneen nettali boo xam ne nii itam golo golo la jël for ko fekk da koo toppoon di daw ci otoom mu jël ko dugg ci àll bi di daw di daw di daw ba yóbbu ko ci ay mbokam xam nga jooju yërmande ku ko am doo tàqale nit ak mbokam mukk ci àddina الثاني صحة أعماله بالسنة والتقوى وتكميله بشهود المنة وترك الدعوة وترك الدعوة ظاهرا وباطنا harakatan wa sukunan fi kulli waqtin wa ala kulli xaalin nee itam ñaareelu charte bi condition bi nga xam ne war na ci képp koo xam ne dañ koy topp mu war a gindi nit ñi yóbbu leen ci yàlla war na nekk koo xam ne euh, dafay am ak wér ci ay jëfam tegu ci sunna waaw mu fexe ay jëfam yu wér mu tege ci sunna loolu bokk na ci li nga xam ne dana ko yombalal ak jubalam ñi ko topp ndax day tax ñoo ñépp mën a roy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa beneen bi ci des mooy wa taqwa ak ragal yàlla kon war na ci ki niy topp sixatu amalihi bi sunna mu wéral ay jëfam ci sunna wa taqwa ak ci ragal yàlla lépp lu muy def mu teg ko ci ragal yàlla wa takmiluhu bi shuhudil mu di ko mottalee ci téewe xéewalu buur bi wa taala delloo ñépp ci yàlla ka ne lépp li ngay am xéewalug yàlla rek la wa tarki daawa zahiran wa batinan mu bàyyi woote bàyyi woote yàlla defal na ma nangam am naa cër sàngam sàllaaw man kay aras nii aras naa kursi yu fii maqaama fii xadara sàngam fii am na ko ko fi daan def temps yàlla ci ginnaaw nga xam ne moom daal léeg-léeg nga dégg ko muy tudd ay baat yoo xam ne bañ nekkee ci xadara ba fii la yàlla daan defee lii bay bay nettali pentre ba yàlla dina tet kenn mës ta gis lii rek cest à ay wax yoo xam ne dalee leen ni lii ay fen la mais foo koy vérifier kenn mënu koo vérifier baat yi muy indi du baat sax yu am bu doon baat bu ñu xam rek pour nga gëstu ko day yomb baat bi du baat bu ñëw ci wolof du baat bu ñëw ci arab du baat bu ñëw ci benn téere nan la nangam sàngam ca xadara ba mu ngi tudd nangam kenn musta gis loolu di ci fen fen yoo xam ne tabax ci wilaaya nee naay taalibi tiijaan la ku la jox wird mu ne Seydina Cheikh moo ko jox direct ba nii nii amul sëriñ mi ngi wootee parce que nee na Seydina Cheikh moo ko jox wird directement waaw di woote ay maqam ak cër yoo xam ne nee na mooy xutbul aqtaabul kabir waaw mu mu yilif ñëpp léegi sax nee na mooy limaamul mahdi waaw mooy limaamul mahdi faf nag benn yoon wala ko nag da nga doon yéeg rek waaye yaa ngi daanu si de bu soobee yàlla ci suuf nga jëm waaw ndax ñun seydina cheikh lim ñu jàngal mooy limaamul mahdi insha allahu taala taalibe cheikh la <laughs> kon ngay da ngay ñëw rek bokk ci rang bi benn yoon mu jeex jarul woote kon wote maqaama moo war a jeex jaru li nga doon yàlla la koy def wan ko jaam ñi jaam ñi ñëw jël si ko yow sax yoon nekku ci ab lantinoor nga rek waaw mais boo ne kaay leen kaay leen rek moo tax tegal leen charte yi lu baax la charte yi ku ko ci mënul motal wàccal chaise bi nga toog xaar keneen ku ñëw waaw xarakatan wa sukunan bàyyil woote ci yëngu ak ci dal bul woote ci dara am na ñoo xam ne seen dégg ji ngay gis noonu ak woote la de am na ñuy mobiliser nag ay nit kërti kërti defar affaire yu garaaw yoo xam ne yii nañ yëpp genre propagande propagande dañ ko mën de marketing rek illa fu ñu dem am fa taalibe ngir fees am ñeneen ñoo xam ne seen tekk gi yëpp ak woote la parce que dafa am benn xeetu toogiin ak ay waxin yoo xam ne day incarné ak ciriñ quoi waaw parce que yow yaa ngi defee ne boo waxee ci kaw sax après doo nekk sëriñ voilà da nga non sëriñ Cheikh moo doon wax ne ak ciriñ yi gën a metti parce que nee na xeetu toogaay yiñ da bëgg a toogloo ak nin lay noppiloo ak newul ci yow li nga bëgg a wan nit ñi cest à coono bi ci nekk rek <laughs> kenn mun la koo wax cest loolu ab xeetu woote la quoi nit ñi defe ne yow nii nga mel nii daanaka ab malaaka bu toog la te fekk yow booy wàcc fauteuil bi wala nga simmi mbub mi rek non anañu yàlla yërëm daal <coughs> dolli ñu sutura fii kulli waqtin wa kulli xaalin bépp waxtu ak bépp xaal boo mën ne bul woote waaw bul woote de waaw sëriñ Hadi nee na comme sëñ Abbas ku ko ci waxati kuy woote naan njool maa ngi dum njool de waaw nee na koo dégg muy woote naan man maa ngi nii maay njool mi maa ngi nii maay njool mi mu ne waatal ne du am njool njool mi kay day romb rek ñu ne njool maa ngi nee di dem waaw waaye xool ma njool naa xool ma njool naa njoolul day yuqamti ko pour njool hmm, moo tax maay nangam maay nangam jaru ko diw moom niinal rek waaye maay diw maay diw maay doomu diw maay sëtu diw jaru ko niinal cest à boo niinee rek ñu xam ne diw nga diw moom kenn du ko laajte <clears throat> parce que dafa niin waaye yow man maay diw te niinoo non da nga naan maay diw ba nit ñi ñëw laal la ne lii du diw de ñu ne tax ñu ne parce que niinul ah boo dee yàlla laa ba nit ñi ñëw ñu ñëw gis jëfoo ko ñu ne ah saa kay ndeke li muy dara nekku fa athaalisu ñetteel bi ixkaamu amrihi bil basira ngay xereñe mbiru yàlla bil basirati annafidhati ci gis-gis bu leer manam mbirum yàlla yow da nga ci xereñ manam da ngay mën a décortiquer message yi yàlla di wax ak yow gis nga yàlla suñu cheikh yàlla ngay wax ak nit ñi ba légui de sari yalla xool fi kulli waqtin wa kullu halin mën nga wax sax kulli daqiqatin yàlla mi ngi wax ak yow mais nak lende mu xel yi lende mu xol yi moy tax décortiquer wuñ message mais yàlla day wax ak yow à travers jaam ñi mais message yooyu foog nga xereñ amuk cell pour mën a dégg message yooyu léeg-léeg mu waxeek ak yow ci daamar yi daw léeg-léeg mu wax ak yow ci nit ñi ñëw ci yow di demaat léeg-léeg mu wax yow ci bàyyi ma yi mais message yi xoolal nii la ñuy comme taw yàlla mosul noppi ba nii nii nii niveau ngay yegg rek commencé di décortiquer message yu yàlla mais yàlla amul lu muy def ci hasard. léegi nag mbiru yàlla yow na nga am xerañte gu toll ni bu ci bàyyi dara léppam téye ko bil xikmati léppam téye ko ci xerañte xam ne am na am na lu waral lii du hasard nga xëy rek picc mi jékki saa rek xeec sab romb la lu tax sëriñ Xaadi Touré doon jàng ci ay petax yuy sab xam nga bu toogoon rek dégg petax yi kur kur kur kur kur bu doon ñun dañuy jàpp ne petax yaa ngay sab rek mais fexe na ba décortiquer message yu petax yooyu mais li ko may nag lim nekk maftu ali loolu moo tax mu ne ko na nga def yitte ci mbiru yàlla ak basira mooy da ngay am gis-gisu xol bu set bu xóot nag wal ilmi as saxiix nga am xam-xam bu wér xam-xam bu baax bu sell buy wéral nit jëme leen ca yàlla wa in lam yakun taabirun même su fekkee amoo ak leeral sax maanaam yow amo laminu fasa waaw maanaam nit mën na am xam-xam te du fasa du éloquent ci ni muy waxee loolu lu meuna nek la mu tere wul wutal xam-xam bobu rek wala lisanun fasih gis nga ta amul làmmiñ bu fecceeku làmmiñ bu set même soko amul du tere nga diko def manam ngay wut xam-xam te di xereñte mbiru yàlla yi muy tëral ci jaamam ñi ثم لا يضره turuqu naqsin yow mama. mu ne waaye nag bum la gàllankoor su ma laa yaduru topp bum ko gàllankoor mukk turuqu naqsi yoonu wàññeeku yi waaw yow mamma bés bum mën a doon wala nga ne bés bopp def na ko maanaam nag da ngay góorgóorlu ci wàllu yàlla nit ñaa ngi la topp nga di leen gindi ci wàllu yàlla waaye nag leg leg nga daanu de wallahi yalla bari sutura rek bu len yakar ne serigne si duñ juum bu len yakar ne serigne si def bàkkaar bu len yakar ne duñ bidanti dañuy djum dañuy lu bare da len di dal li dal jam ni mune nak yow tamit même su boba bu la fakassale bu la galankor bu mu tax nga sa na ah daanu na comme def li c'est fini mune bul tekki takay de ndax doog yonent te doo malaaka nit nga di juum di jógaat mu ne bis boo demee ba am bis ci bis yi nga tarxiis laal bàkkaar mu ne du tere tuubal rek nga amaat courage nga jógaat sinon da ngay defe ne comme tey euh, ni ma toll ci dëkk bi ak li ma wër ci ay bi tey tarxiis naa juum naa wala biddanti naa rek cest à man kon yàqule naa toog naa banaa mission bi ah mu ne déedéet nag na dana am bés ci bés yi lii mën na la dal waaye du tere na nga continuer nag ida lam yaqa ndem tàbbi waloo ndem tàbbalu ko tarxiis boobu ndem tàbbalu ko israarun ci nu waaw ndem nag njuumte bi ñu naan ko boo fakkasaloo jógaatal mu ne à condition que tàbbiwul tàbbiwul israarun ak nuur ca bakkaar ba wala naqsun du caagi muy wàññi lil usuli ca cosaan ya maanaam nag waxuñu koo xam ne dafa bëgg a nekk koo xam ne bàkkaar ba daal moom da koo ndayale boppam rek soo waxee mu ne man daal lii mooy sama nattu cest à moom baax na def na lépp mais carte mooy nattoo nee na du ko bàyyi loolu du tarxiis de loolu du njuumte de loolu taqoo gi maa la kooku dafa topp bakkanam wala jigéen mooy sama nattu wala butéel bi mooy sama nattu comme ni ma déggee woon benn kilifa wax ko ci rajo bi ndekente saa waay foo ko fekk waa télé télé ji lu ne ndeke moom day carte day joué PMI xam na ko ñu dalal ko ci plateau bi ñu ko waxee ba yegg ci joué PMI mu ne moom loolooy nattoom ma ne ko non da ngay caaxaan loolu du natt nattu da ciy jóg bàkkaaru carte nit mënu koo taxoo ne ab nattu la da nga ciy jéem a jóg mais munoo cee nekk di faj say soxla yaa ngi lekk riba nan ngay lekkee riba ne am nga cër ci yàlla waaw mën na la dal nga xam ne dal na la nga dem di tuubi ak a jéggulu wala nga naan sàngara di dem di tuubi ak a jéggulu wala nga rëcc wax lu dul dëgg mbaa nga rëcc jëw nit dem di ko jéggul mais boo ko bëggee takkoo loolu la lay bañ ida lam yaqa israarun ci kaw nuuroo ci bàkkaar bi nag ne rek walla naq naqusul du caagi mu wàññi lil usuli ci cosaan yi bàyyi julli wala mu bàyyi woor wala mu daganal lu xaraam wala mu xaraamal lu dagan mu ne yooyu boo ko jëlee waaw yooyu tamit jar naa bàyyi xel bi irsaalil jawaarix ci yebal ay cëram ñuy daganal lu xaraam waa ñuy xaraamal lu dagan nuuru ci bàkkaar yi loolu moom neena na ko moytu fii maasillaahi bi irsaalil jawaarix ci yabal cër yi fii maasillaahi ci mooy yàlla dégg nga de aw awi tasannuci bi taatillah wala wanewu ci jaamu yàlla di jaamu yàlla di wanewu sooy dem xadara ñëpp yëg ko sañse ba jekk tagal mbaxana mi tii kuris gi cëkk cëkk catal marakiis yi ku la nuyuwul sax nga nuyu ko ñu naan la taaliba cheikh nga naan wéy alhamdulillah <laughs> yow sëñ bi yow tamit doxal ndànk rek dem xadara ji ñëwaat te boo mooy tawut kat àjjuma ba àjjuma lay dem jàkka ja xadara baa ko fa yóbbu te buy dem day sañse ba jekk laal parfum bi mu gën a bëgg kurus géeg marakiis yi mu fonk su demee cakas cakas cakas cakas ba pare doxaat ndànk ñëw ajjuma lay demaat ay waay samba loolu wane wu la su ko defee yooyu nga di ko moytu kii tamit ajjuma ba ajjuma lay julli ji balaa muy julli ji sangu ba set sañse ba wexat téye sijaadaam catal ay maraakisam di dox ndànk nag waaye ajjuma la ko jumaa ji di gisaat parce que yeneen jours yi mënoo dëkk ci sañse dangay sol ay yére yu yamamaay te du du jaxasoo nit ñi ci noonu loolu wane wu la ci wàllu jaamu yàlla loolu moom nee na da koy moytu awi tamaa yi wala di xemmeem fii xalqillaahi mindeefu yàlla yi yaakaar wala nga jël sa yaakaar yëpp wékk ko nit ñi day tas day tas da yaakaar yàlla amal yitte yu kawe mais sa yaakaar yëpp wékku ko yàlla nit ñi ay lantinoor lañ ci li la yàlla di jox mais boo jëlee sa yaakaar yëpp wékku ko nit ñi mais nit ñi mënuñu mënuñu amuñu xamuñu wéruñu léegi nag su ko defee ñaar ngay dëkkee da nga méré nit ñi té defuñ la dara parce que li nga wék ci ñom atunu ñuko ñaareel bi ci des di nga méré yalla parce que da nga japp né yalla la ko defalul té ya ko fa bayyi tuddé ko mindé fi ci ñetteel bi di nga torox yan ci yalla musal su ko défé melni ni li ñu amon ci ay waxtu mi ngi jeex li an hada ama basira mune yi nak moy mooy silmaxa xol loolu gumba xol yàlla ci yalla musal euh, kama khalahu كما قاله الشيخ الدادلي رضي الله تعالى عنه سلم خبت موغن ويف سلم قول من تييم وخني كوي جفنديكو كوكو قلب سلم خلا يور امول دار تي بصيره نانكو جانغي وون تي لخداري وتمثيل بصيرتي اك فر غيس غيس خول كون بوكي ملنا لي امون تي اي مينوت جخنا ني جوخ لين ديك داجي سمن بي دي نيو ني ييغلي في نو تولون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيت الولايات في فحوزان Shall we?